combat bi. si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ma la wax loolu nee na boo loolu ci combat loolu ci bañul moom boo bañ ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat oo fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tafatine parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tafatine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la ko quoi. man li ma wax moom laa xam mun sama kopp xool de incha allah ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax. parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am na suufle nga xam ne du sedd te fu ma woo maa koy xaar pare naa ci lépp te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man illallah man dafa foog naa ne xale bi bëre rek la mën ndekete xale bi day rax waaye xam naa ne bu Tapha Mbeur ñëwee bu waxee ko kii ay ca Bilal xale baa ngi noonu Ada Fass la Fass séeréer de fas ngi noonu ma ngay dugg si waaw waaw bu mag baa ngi noonu dafa mel ni maximum de confiance la duggee nag gis nañ ci moom état de forme gis nañ ci moom confiance wante gis nañ ci moom détermination cey aada wante am nga adversaire de taille kooku mooy Tapha Mbeur Mm. ca Bilal ñu ngi ak euh, Fallou promoteur bi nga xamante ne bii moom moo organisé lamb ji macha allah nekk événement ba nga xam ne amateurs yi ñu ngi koy xaar Fallou ñu ngi lay nuyu. Mbaye Babacar ñu ngi lay fay bu baax. waa yaa ngi si jàmm di la ziar da jox sa wàcc waay ñu ngi ci jàmm bu baax euh, nga jëm bis bu ay bis sax laa la wax nga jëm bis yu rëy naka nga ko waajalee ak fan nga toll. waaw mais dañuy am mbégte Mbaye Babacar ndax yaakaar naa li ñu tax a jóg mooy fair a li ñu tax a mooy fexe bu ñu defee signature contrat mu àgg ndax ku xam ne fan yi li xele xewal signature contrat il faut ñu changer doxalin bi te yaakaar na lu mel ni da koy indi saaru innovation yi tey bu fekkee entrée la am nañ yaakaar sécurité bi doy benn violence a am te kii nañ am na am moo tax tey ñu ñëw def lu mel nii. nga boole ñaari xale yu am coow la 7 août diggante Ada Fass ak Tapha Mbeur. waaw mais bala ñuy ñëw le 7 août incha allah dañoo am le 10 juillet. muy doomu Jalaaw ak Boy Niang 2 ah Papa Boy Djiné ak nga xam mooy Bébé Bismi andi Baye Mandiaye Agago ñu war a ñëw le 10 juillet incha allah buñ fa jógee dañuy ba boog fan la fii la fii la nii Ibama. non Ibama arène la. arène nationale boobu arène nationale lay yem le 10 fa jógee dañuy dem Bawol mooy espoir yi nga gis ñoom la ñuy yóbbu Bawol fa nga xam mooy suñu cosaan fa yóbbu ko lamb la incha allah la. fan ci Bawol. Réfane lañ koy dégg. Réfane sur l' lendemain Tabaski. incha allah rabi bu ñu jógee foofu nag ñoom la sept août muy diggante Ada Fass Tapha Mbeur Mor Kang Kang Boy Yeumbeul di am solo tamit ci bis lan lan mën a xaar ci ay innovation yu bees ci na yooyu. waa mais commencé nañ tey nga xam naa fii ba bis yi incha allah chaque ñu ngi si yeneen innovation yu bees ñu ngi ci yeneen création yoo xam ne yu bees la. da am nañ yaakaar képp ku ñëw ci suñu événement yi jëm yaakaar naa di nga kontaan ndax bëy ki démb li am stade moom arène nationale ñëpp gis nañ ko te yaakaar naa li ñëw mooy dàq foofu tax ci lañ gën a liggéey. ñu gis nga convoqué woon euh, mbër yi 16h mais ñu gis ne 20h euh, la ñëw lan moo waral tardement boobu noonu. waaw li ko waral mooy day dafa mën ay marches yu am fii. disposition sécurité yi ñu bëggoon duñ ko mën a am après ñoom ñu woo ñu xamal nañu ne nañu bàyyi ba 19 heures 20 heures ñu doo commencé su ko defee sécurité bi mën a doy ñu mën koo def ci nga xam ne mooy fair play ak li nga xam ne mooy jàmm ndax loolu rek la ñuy wër tey. kon sécurité bi moo la ñaan nga nga yéegal ko ba 20 moo ñu ñaan ñu yéegal ko ba 20 après ci la ñu woo responsable bi CNG bi nekkoon wax leen ko expliqué leen ko pour ñu xamante ne ne dinañ ko mën a gérer noo xam te ni am ci jàmm jeex ci jàmm ndax jàmm rek la ñuy wër. ban kàddu nga yóbbante supporters yi waaw mooy leen wax fair play rek xam ne lamb fo ak ree la di ree di kaf moo tax tey di orchestre pour ñu bëggee foree kon lii fo ak rek jàmm rek moo fi war ma yaaro benn au ma seen fay gars si kaw BM Toubé sama frère mooy dara si kaw waa sin dóor au ma fayam laa waa sin dóor waaye man toog ma si ginnaaw kenn ma soo daan nit di xaal sama yoon ba egg si ma waaw du man ak waaye man la caaru yooyu mbërum ñëwee ñëpp dalal jaamu rek parce que Serigne Touba. te ma ne kii du yoon ak kii defu fi dara. kaay bi kaay taxawal nii rek. laaj ko bu mu daan. dara kii defu fi dara. bu mu daan laa lay laaj. waaw yow koo daan. bu ma daan. xoolal ñi kuy bëree ak sunu réewoon xam na caaru yooyu kan moo la kii koo taxaw ne Mama Lamine numéro 2 ñu jàpp sa loxo. booy si amoo xaalis amoo ko rek jàppee man la caaru ngeen mbëru ñëpp daan ñibbi ak Serigne Touba. kulli. ah. bilaay akay ne. yow caat. doomu ndeyu caatu yaraax. waaw ba. am nga sale bu baax. koo xamee. kii ñoo reefan. damaa yàgg a toog. barki Seydina Mohamed. kii daanu ngeen. barki Seydina Mohamed daanu ngeen. benn gomaa la nga am benn xel. bilaay moo gën niir ci mbari bool dinaa wax kii maa ko dàq bu ne maa ko doole billaay walaay daal kii dama koy sant di ko gërëm sama wax taxawul na deux deux mois billaay walaay gerte kon moom yaa ngi lim tool yi maa ko gàtt ñëw bi xajul si booy bi barke Sëriñ Tuubaa ba kii du maa moom maa ko sant nag di ko gërëm bu dee moom dëgg na boom ba jël ko mais war na yaa dem ko jël Modou Mbaye barke Seydina Mouhamad ki bu dëggale boppam mu war a minir barke maam Serapha Ngom ki mu du maa waaw mooy lii. bàyyi kii waxal ak kii kii ngeen ne mënoo koo fan de kii dama koy di ko gërëm mooy li ma la wax rek sama kii day doxlu li muy wax yëpp mooy parce que Seydina Mouhamad boo taxawee dëgg sama dugub bi minute ko doole booy. billaay ne ko laaj taala bi maa ko joxe dugub kii bu taawee ne yàlla bari nga xoolal ko. kon mooy mooy nu ko fii léegi. fii ay du fii. Quraanu Karim laa lay waatal. kii bu ma ko dumawul may bàyyi làmb. d'accord xam nga moo tax. kii dafa ndaw. kii dafa ndaw. ku ma daan barki si Fallou Mbacké. mënu bàyyi gaa yi nii dañ maa yeb. waaw. bëgg naa lii waay. ñu pendant douze mois. dugal ci làmb bi. mais xool yi yëpp am na xaalisu làmb bi wala. évoy li neex na évoy li neex na Bamba kanaara la bota duuf la yéen nag bu dee ama doon la de. jot na sama avance fu nekk pour ma nag moom barki alxuraan ak kër gars yi dañ maa yëg. billaay wallaay talaay am naa sept combats sept victoire mosuma am bëre xam na loolu bu baax kii jafet la ñu champion la ndaanaan la am na sept combats sept victoire barki yonent yàlla Muhammad man tamit maa ngi sept combats leer nañ ni six victoire benn maximum Modou Mbaye kii lii muy wax nii lii la ci làmb ak kii yonent yàlla Muhammad te eh, ma kii du taxaw xeex eh, lekk laa koy ñaan yàlla na ko yàlla defal jàmm barki Seydou naa Muhammad yàlla nga am jàmm Baye Fall bi yaakaar nga am man 2004 la ma booy bi ñoo maase booy bi ñoo waxal li mun a nekk askan ñoo lay seetaan waxal lu lu si. wala booy bi sol mbaxana bi nii waaye wàllu kii yëkkati loxo. mbay ay ay ñaata at la am yooyu yow amul problème te xam nga lan lañ seet. arbitre suuf la moo duma ko. man naa koy man naa man naa soxla yow jàngul xamul ñaata at la am muy at kum koy laaj fii. moi je suis intellectuel. dara intellectuel du xam ñaata at la am. mbay mi. alors wax lii. jërëjëf wax. Bak böyle değil bak. Bak böyle değil rek. Naan dak dal rek. Man nag bu dee yàlla jéem a dàq di wax di wax ak moom wax ju bëri ndax warul waaw. deux ans deux ans sax day yàgg at billaahi at laa la may champion yëpp dinaa bëri ñoom man fa laa teg man xale laa. damaa ne si yoon géej waaye damaa yaakaar du paa bi moo may téye ak Cheikh Ahmadou Bamba Agogo bu am bi sifflé man maay dirigé man maay def maa lay wax yam ma fii li ma wax nii moo ma tiim de bu fekkee am bi sifflé ma attaqué Agogo mooy tax man ma gaañ daf leen defaral ma bàmme tax am dinaa dee ndax damay dal waaw Ndiaye ba nga xamee ne paa la nga waroon yar xam ne sa baay la nga doon ci man yow baay bi nga doon ci man dinaa la jëndal ñaanal loxo ba mu neex jox loxo ndax amoo ay bëy ne la maam nga dama toog mënoo si ko kii kaay mi lay xewee baay mi Njaay parcelle gi nga yaakaar dem di uti wàllu bay ñëw joxale leen ngemb ñoom ñëpp ñu ngemb ñëw man soxlu maa bëgg ak yow kese de ñi ngay àndal ñoom xaw ma ni koy waxee jox leen ngemb ñu ñëw man ma Njaay da ngay yeeru rek yëpp si nga jëmmal roof la si da ngay yëpp si nga kay boo yema ci guddi yëg sa mbàtt ma roof la si dagasa ma nga yaru rek maa ngi dégg ngay wax rek Baye Mandiaye yaa ma ëpp doole yaa ma dàq bële loolu la waxee rek xëy tàggu suuf bi yëpp dëkk bi di bëreeg ay soixante nangam bi Agogo yow benn combat ngay Agogo benn combat arrêté Modou Mbaye Agogo ku dàq bële gën a doon xale foofu foofu sax dañ koy teg fee ndax baax dàq bëri ku ëpp fit ku gën a ñeme entraînement ku gën a fonk làmb ku gën a bëgg a sa yaay bu ko waxee woon kër gi gën a fonk làmb ku ëpp li nga jël ay drapeau ci làmb yàlla na la yàlla may ndam. Bébé Bismi man du ma waxoon bi man taalibe Cheikh Ibrahima Fall laa Sëñ Abdou Karim Mbacke mooy suma wasi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu fekkee suñu borom may na ma wér incha allah rabbi may ko wér ba mu ñëw stade le 10 incha allah su fekkee dina le 10 incha allahu rabi fu mu taxaw ci kàttanu yàlla naa ko fekk ñu xeex bëre ma daan ko incha allahu rabi. bu la la fekk. kàttanu yàlla sunu borom incha allahu rabi su ma yàlla may wér damay teew sant damay bëri dama koy daal mais Modou Mbaye lenn rek laa bëgg a laaj Sénégal gi yëpp yéen laay laaj waaw boo ñu ne kan la laaj ba pare avant tout kan la man daanuma kenn daanuma kenn incha allahu rabi waaye nag bii si kàttanu yàlla bu baax la daan nga ñëpp bëri waaye si kàttanu yàlla dama lay duma dama lay daan incha allahu rabi. Modou Mbaye saxal nit yomb na trop waaye mu sàq mi moo jafe kii yaa ngi koy saxal boobu léegi nag mu sàq moo sàq mi ma daje ŋaami incha allah. koy jox si ngoom daji ŋaam wala. tambal laay jël dama koy bàcc ba on la rek. kon mooy mbëri ñu bàyyi li naxante ba bis bi nay waxantu nii rek di mbalak nii di taañ nii. barki Seydina Mohamed lamba ji ma nga arrière benn pas te fu mu fekk naa ko dimbal ba bis bi yow yaa wax te du la arrière non pas ma ne yow yaa wax moom moo ko def sama làmb musuma arrière amul mbër bi ma dajanteel sama combat musuma arrière mbër yëpp maa leen song. waaw soo arrière day gën a gaaw incha allah. man amul góor yàlla buy jàkkaarloog man may arrière ak noo mënti toll noo noo mënti toll dama lay attaqué dama lay daan. naa la làmb dafa neex. làmb dafa neex moo tax ngaa koy sax gis nga mbaalu ñu ngi si stade bi def seen i seen. ah làmb moo neex. ngaana fi yow yaay ngaana si bopp fii ngaana am ñëpp ay champion la ngaana dama ne lamb moo neex bul wax ay champion ñëwuñu si champion yi maa ngi yooyu ñooy si nii bul wut wàllu kaay yu sot ko fu mu am ñeme amatu fa tëjal sa gémmiñ gi moo gën ko bi jël kaay yoo daa ni lamb moo neex ba ngaaka di doxantu fii i am yow la wala boog doo bis moom la doon xaar na ku yegg si kii kii bi ñëw billaahi dama nekk si rythme yow nekkatoo yow nga toog trois ans bëre woo man ma rangale booy yëpp nga ne may yow nga ne nga téye wa waaw. billa billa nampal soit damay xeex ak yow. moo xeex da lay sot nga yaakaar ni tribune da lay sot xeex dara de bés boo xeex bés boo say mbokk wax def ko bu baax moytul doomu jalaaw jàppale yow su ma la dàqul su ma ko dàqul bëri yàlla bu ma fanal billaahi wallaahi wa taala yi maa la dàq bëri fuuf laa ma jaam ñuy seede ki dàq bëri man ak yow yàlla na ko yàlla may nag amin yow da nga yow yow yandaar billaahi wallaahi ki dàq bëri dàq xeex yàlla na ko yàlla may ndaw soo bëggee ñu bañ a xeex ñu bëri soo bëggee ñu xeex ba duma la. dama ne dama ne lamba ji. dama nekk ci rythme. Oh, oh. yow lamb dara raw. yow bëy bëyee la nampal nga jàmm. dama ne lenn laa lay yëgal lenn rek lay yëgal bëri dóor la ñu wax dinaa la duma dinaa la daal. yow bu sumee boo lamb ji dañuy xam ne état yi bokkul état yi bokkul bëri naata naata yow yow chaque ancien état amoo doole màgget nga. 300 bëriwul nga may wax. xam nga làmb nit ku nekk. nit ku nekk y a des hauts et des sa làmb ngay lijjanti. amoo noo koy lijjantee nga ne da ngay jaar ci man. da ngay jaar ci man. may la loxo may la woo benn grand combat man ma bëree onze grand combat. nga naa ma bëree wu ma grand combat. moo la kii waaye. bëree na kii bëree na combat yu mag yu bari. kii ndongolo. grand combat lañ bëree. man ma bëri ay grand combat fii stade bi su mënoon a wax dinañ la kii bëri na ay grand a gërëm ndongoloo billaahi wallaahi yow yéen ñaa seen bëre dina xeex kii dañuy xeex dañuy bëre kii dafa toog année balance damay xeex ak moom buñ ñu àttee mu yaakaar ne dañ koy sotti kii may xeex ak moom xeex bu ma ak yow duma la daan la Modou ci dama bëgg yow nga yeb ko kat mooy doomu Jalla lenn rek laa koy xamal mooy wax ji bëri na mu mel ni ku bëri nàmpal nii gis nga man du ma ko topp ci ay wax parce que làmb ñoom dafa rëy mais euh, li ma koy xamal lu tuuti rek le jour ji xam lu tax ne dafa mel ni dañ mais li koy daan moom sax du ko gis. yi dégg waaw waaw. liggéey dama bëgg sama mafia jëndal leen ñu ñëw feesal a bi loolu rek laa bëgg man soxla wu ma xaalis soxla wu ma dara. waaw waaw damay supporté ñëw sëñ bi man laa soxla. mais kon nag foofu may amee xaalis lu ma def si làmb laay wër ba ñu xam ma barke Serigne Fall di sant monsieur le maire Lamine Gueye bu xombal maa ngi koy sant wér maa ngi koy sant wér a wér a wér maa ngi koy gis si taxawaayam taxawaayam rafet na li mu dëgmal yàlla na ci am ndam si doole Serigne Fall sant Ablaye Gueye Daouda Gueye bu baax a baax a baax di sant Daouda Gueye di sant waa Kombal di sant waa Jébu Fall ñun ñaari Jébu Fall yëpp maa ngi koy sant di sant waa Limao di sant waa Newra Kulu maa ngi leen di sant Touba Tour bàyyi ma woon Touba Mbacke ñoom Baye ji di sant waa Touba Mbacke bu gër waaw di sant Baye Badam non dafa sonn si man man di sëñ Fall kii fot sama fay ko bii daay fot sama fay ko wasalaam kontaan nañu bu baax a baax monsieur le maire kontaan nañu gars yi bu leen ñëw waay s'il vous plaît. waaw waaw. ayca DJ bu la neexee Arafa sama waay day rab. Arafa dafa génne son. moom ak Tafa Mbër. ñu koy set. incha allah déedéet ko téye day rab. du ko téye. Arafas! Vai, tu, cara! Fallou Ndiaye yegg si na mbokk yi numéro 1 indi na Tapha Mbeur Ada Fass ñaari xale yi ay ndaanaan la ñu déglu leen li ñu rab Ada Fass mu ne Tapha Mbeur mu ne loolu la ñu wax waa Sénégal xale yi. ginnaaw bu ñu seetee yàlla julli si yëngu bi sant ñaari waajur ñu defee ko noonu comme ni ñu ko daan defee jamono yi mu bëri di nuyu aada bu baax aada bu baax di wax ne yàlla na ko yàlla defal ko jàmm waaw leer na tàkk muy defaa ko ci day neex xaw ma lan ko tee mais nag yàlla yàlla defal jàmm ko suñu combat jàmm salaam di nuyu Fallou Ndiaye bu baax nag di wax ni wax dëgg yàlla maa moom ñoo bokk benn koñ jaxaay mu nekk loo xamante ni liggéey si dëkk bi di jàppale bi di ko ñaanal yàlla ko yàlla defal jàpp di nuyu ma àndal sama mag Assane Diong samay soxla yi sama xarit yi Assane le terrain mag booy may sant ñëpp di gërëm ñëpp nuyu sama mbokk waala waala di leen jox rendez-vous le na ñëpp. teel teel nga joxe daal des na yeneen daje. damay bëgg ñu koy waajal waa yeneen daje yi. waaw bu gaa yëpp préparé boppam mu nekk. après war nañ dem parcelle. voilà mu nekk lamb yoo xamante ne lamb lamb mun naa ne stade bi ñu taxaw am naa fi tàkku saa bu nekk damaa dépassé fu may limee ay mbir leen ay mbër parce que ñoom ñëpp ma leen woote jaboo te leen jàppale mais fii am fi tàkku saa bu nekk champion bu champion ji di bëri naa ko tey bu ma demee ba génn si lamb am na ñoo xamante ne bu ñu mënee làmb ginnaaw dañuy faxasu man dama créé sama entreprise jël ay na ñoo xam ne ay mbër di liggéey ñëw jàpp sponsoré làmb ji te ne yamuma kese si di leen ko dénk ñu di wax ma fi nekk mbër yi nga xamante ne dañoo wan gannaaw làmb dañ dellu si ñu jàppale booy parce que booy tamit wax dëgg yàlla dañ leen war a jàppale tey jii boo xoolee Ada Fass tey jii waa Fass ak ñu wër ko tey jii moom rek lañu àndal tey ñii amuñu lu dul rek lañu dund kon ñii dañ war a jàppale ku si nekk li ngay yëngu dañ la war taxaw kon tey jii man maa ngi seen ginnaaw même ba si combat bi moom ak adversaire bi yëpp dinaa leen taxaw si combat bi jàppale. bu baax a baax kontaan nañ ci délégation bi kaay taxaw nit ñi waa Fass a ngi lay waa Fass a ngi lay xaar presse bi ñu ñëw jo kaay leen ànd ak man waa Fass taxaw leen waa Fass taxaw leen. c'est bon. baaro baaro waaw. Ada. Adina a ngi lay déglu dafa mbër ñëwul tey fii yas sa jom Iba Mar da wax say supporter da wax ñii seetaan. waaw jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul maa ngi sant teew yëpp rawatina samay supporters ñu bàyyi seen lépp ba heure bii nii ak sëñ Bamba am na seen fay quoi ak sëñ Bamba lii rek dafa dafa doy ak sëñ Bamba di gërëm suñu grand zone technique bu baax a baax di wax rek ne ancien leader la ay xale lañ yaakaar si làmb bu ñëwee pour jàppale dañuy kontaan di wax di ko gën a ñaax mu gën ñu jàppale ndaxte instant bi ñoom ñoo fi ne ñoom ñoo tax ñu mu war ñun ñu mun a am jom si làmb ji sëñ di gërëm ñëpp tamit ne sama adversaire xam naa empêchement moo ko téye rek mais incha allah eh, incha allah dafa ngeen mu ñëw bëri si allah dafa am bëri nekk xale boo xamante ne nii sa nattangoo la sa morom la sa diggante ak moom nekk combat boo xamante ne lamb da koo yaakaar lamb da koo soxla s'il te plaît dégg sa diggante ak moom nekk lamb joo xam lamb da koo soxla sa préparation ak tafaam nga naka la waaw comme rek kon toujours lu ñuy préparé suñu combat rek bii moom dafa rawati ndaxte bii Ndakaaru moo ñu sas mu nekk xale ma nekk xale gën ko doon xale dafa nekk xale man xale laa gën ko doon xale mooy feeñ. yi nga xamante ne bu arbitre sifflé moom fi ngeen war la man xale laa gën ko doon xale wala set laa allah bëre xale day gaaw day am xeex kon ñu jox gars yi rendez-vous ci diggante bi des na yeneen. incha allah. kontaan nañ ci yéen ñëpp gars yi jaajëfal nañ leen lañ jox wala ana. Ah, di sant ñu si jàpp. am na ñoo xam ne man du ma leen bàyyi sama staff. laxal si la jàmm la damay juum di gërëm noonu ni Baye Fall di ko sant bu baax a baax Paco Jackson maa ngi koy sant di ko gën a jàpp grand taala ña koy sant di gërëm di woo Fass Colobane Gueule Tapée képp kuy lay woo di woo grand bi di ko sas naa ba ñaari bloc billet zone technique ñaari bloc billet laa bëgg mu ñëw Fass si kàttan suñu borom di wax gars yi non à combat bi. lu mu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ma la wax loolu nee na bi loolu ci combat loolu ci bañul moom boo ñaaw bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat oo fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tafatine parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tafatine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la quoi. man li ma wax moom laa xam mun sama kopp fol de te incha ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat du sedd na xam loolu baax. parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am na suufle nga xam ne du sedd te fu ma woo maa koy xaar pare naa ci lépp te maa ngi liggéey loo xam ne ni man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man